mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant si seetaan gi ngeen di seetaan ak di ko déglu tey jii ñoo ngi ñëw fii ci sëñ Abdou Guèye nekk euh, jawlin euh, ci yoonu Murit nekk taalibe sëñ Saliou Mbacké rawatina nag moo ànd ak kilifaam ki nga xam ne mooy sëñ Saliou Touré nekkal fi yoonu Murit fii ci diwaanu Thiès sëñ Abdou nag tey jii ñuy waxtaanee ci xew-xew bi nga xam ne moom la ñu jublu. Mm. muy bis bu sell bi di bisu Maam Borom Touba. Mm. Euh, Maam Borom Touba nag bisam bii mu nekk le 6. fii ci Touba mu nekk màggal Touba nga xam ne àddina bépp ko xam. kan mooy xaadimal rasul si maam borom Touba nasalullahi barakaatu. aawusu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwata illa billahi aliyil asim sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay barkeb sëriñ saalihu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mboolem ñi nga xamante bi ñoo seetaan télévision bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Salihu di ko ñaanal Serigne Abdourahim moom Cheikh Massamba Diop Sam mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal Serigne Salihu Touré mi nga xamante bi moo nekk ci dëkk bi nekk fi yoonu murid yëpp di suñu kilifa di ko ñaanal fan bu gudd wu ànd ak wér ak mboolem njabootu borom Touba geeg Cheikh yi borom Touba yëpp di ci jël Serigne Cheikh Jëmm Fall ci barke borom Touba laaj nga laaj bu am solo nag Serigne nag bu ñuy wax kan mooy Cheikhul Khadim mën nañ koo wax ak digganteem ak ay waay juróom loolu mënees na koo wax waaye dëgg-dëgg xam kan mooy sëriñ Touba moom dana jafe ndax maam Cheikh Rafal ma nga xam ni moom la Serigne Touba ni mooy muritul kabir mooy murit bu mag ba di murit saadix sëñ Touba ko wax bañ ko laajee Cheikh Ibra kan mooy loo xam ci Serigne Touba ndax xam nga kan mooy Cheikhul Khadim dani sëñ Touba de dafa mel ni garabu guy ab bët bëtoor ni ca ñàpp lam ni ca ñàpp loolee la xam ci Serigne kon xam nga moom sax kon ëmpale na sëñ Tuubaa ndax garab ni mu toll bët ba na mu toll la ci tëdd rek nee na lu toll noonu la xam sëñ Tuubaa nee la ci lépp ëmp na ko kon sëñ Tuubaa moom baxaru la mooy géej kenn mënu koo xam koo xam ne dafa ne allamani llahu al-alim min ulum ma xamal ci xam ba lu ko soob kon kooko xam ko dana jafe torop waaye nag bu ñuy wax nag ci ay waay juróom ci ban famille la bokk ñen ñoo ko meññi loolu manis na koo wax ngir ñu xam maanaam fameem cosaanam fan la jóge bu ñuy wax waa waajuram wu góor mooy Mamor Anta Sali Mamor Anta Sali ku ñuy wax Mam Balla Aysa Kan moo ko jur Mam Balla Aysa Kan moomee Mam Maaram moo ko jur kon diggante Mam Maaram ak Cheikhul Khadim ñaara fi dox mooy Mam Balla maamam ak baayam bi ko jur mooy Mamor Anta Sali kon ñaari ñoom ñoo fi dox kon ci Mam Maaram la bokk ci wàllu baayam ci wàllu ndeyam ci maam maaram la bokk bu ñuy waxee kan mooy seexul xaddim ci waajuram wu jigéen fan la bokk mu ngi cosaanoo ci bi ak mbàkke yu ku ne xam na ni maam maaram dafa amoon soxna su soxna soo buso la sant ku ñuy wax soxna buso mi ngi ko takke woon ci waa mbusoobe yi soxna buso moomee moo jur ku ñuy wax ahmed soxna buso ahmed soxna buso moom moo jur ku ñuy wax maam Asta Waale ñu gën ko xam ci soxna Aysatu Mbàkke moo jur maam Jaara Buso kon maam Jaara moom sët direct la moom it ci maam Maaram ci la bokk ci la cosaanoo foofa la foofa la soqi ko ndax Ahmed soxna Buso maam Asta Waala maam Jaara kon boo xoolee Cheikhul Khadim maam Jaara mi ko meññ ñoo bokk ñoo wax genn caral ak mbokk ki nga xamante waajuram wu góor moom lañuy ñuy wax Mouhamed Bousso ñu gënoon ko xam Serigne Bousso be maam jaara moom nag mi ngi ganee jamono Fuuta dëkk bu ñax Gollare ci 1833 la gane jamono ca Fuuta làqu jaam ñi 1866 ca Poroxaan loolu moom xam naa dañ koy wutal ak waxtaan spécial kooku daal ci ak mbokk daal kii mooy Serigne Touba ci liñ mën a wax ci ak mbokk waaw xanaa ñu tënk ko foofu rek. waaw ci côté waajuram bu góor. Mhm. bu góor dafa nekkoon koo nga xamante bi ma Mor Anta ku yàlla mayoon la mhm. muy sëtu maam Maaram. di doomi maam Balla Aïcha maam Balla sax ku ñu wax euh, soxna Aïcha Kan moo ko jur maam Maaram dafa yoroon soxna si soxna Aïcha Kan yoroon na ku ñuy wax it euh, soxna Farimata sekk soxna Farimata Seck mooy maami El Hadj Malick ndax Farimata Seck moo jur Thierno Ahmadou Farimata Thierno Ahmadou Farimata Mati Mbacke Mati Mbacke Ousmane si Ousmane si Seydi El Hadj Malick dégg nga mhm. yoroon na ku ñuy wax euh, ba tey. soxna maam Awa Ñeng maam Awa Ñeng mooy maam yi boroom Daaru Salaam maam Cheikh Anta maam Awa Ñeng moo jur Ibrahima Awa Ñeng Ibrahima Awa Ñeng moo jur euh, soxna Anta Ndiaye soxna Anta Ndiaye moo jur maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam kon boo xoolee ñoom ñëpp càllale gi mbokk gi benn la noonu ñu ko waxeet maam Maaram it euh, moo jur xari Mbàkke xari Mbàkke ngan ñeng nga ñeng soxna Safiitu Ñeng soxna Safiitu Ñeng Cheikh Abdoul Aziz Dabakh Malick Sy yàlla yàlla yokk leeram ak sëñ Habib si ak sëriñ Mansour si mii waajuru sëriñ Bay si man sóor mii yàlla na yàlla guddal fana lu bokk ak sëñ xam nga sëñ Fallou ni mu bokkee ci maam maaram mhm. noonu la wëlbatiku waatee bokkaat ci mbuso bi ndax soxna aw buso moo ko yor mhm. moo moo ko jur mhm. boo xoolee tey fi mu nekk ni euh, soxna soxna soxna soxna maanaam aw buso moom mu nga xamante bi moo jur Cheikh Mouhamadul Fadel maam jaara bàjjanam la maam jaara bàjjanam la xam nga suñu Fall doon wax maay Sénégal ndax moom ci ndey ak bàyyi lépp boo xoolee dafa dellu ci maam maaram mbuso bi te mbuso bi rek maam maaram yëpp di génn càll la daana wax ni xaw tuut ma nekk si ndax maami alaaji Malick yoroon na ki nga xamante bi mooy mooy mooy kon ñoom boo xoolee yenn calala gi la yenn mboq gi la boo xoolee tay fi mu ne euh, ki nga xamante bi moo di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke day mbokkum Seydi Alaaji Malick ci wàllu maam maaram gi ci wàllu mbusoobe gi ndax ndax fépp la Seydi Alaaji Malick bokk ak ak ak sëñ Tuubaa ci côté yëpp waaw yépp yëpp genn mboq gi la genn calala gi la kon loola waroon wax mu doon wax maay Sénégal xaw tuut ma nekk si loolu sëñ Fallou daan na ko wax waaw kooku sëñ Fallou hmm. eh. waaw hmm. eh, léegi nag ba ñu hmm. duggee ci màggal ba ko ginnaaw bu ko sëñ bi santaane kana ko njëkk a def ak fu ko defee waaw màggal sëñ bee ko njëkk a defal boppam 1921 ca Njaareem sëñ bee woote bis woo mag ñëpp bañ ñëw mu ni leen damaa bëgg ngeen santale ma yàlla fekk lu jiitu loola dafa am sëñ bi aw bay wu mu yoroon wu ñu ko joxoon mu jël béyoo jox ko sëñ mu lay busu daal ni ko damaa bëgg ngeen dem ngeen soppil ma ko am xaaf am xaaf mooy xar xar mu góor am kuuy ñu dem ca séeréer sa daal di ko fay soppilu wax nañu béyu bay wala béy la waxee bu mënoon a jur la bañ koy ma di ko jox séeréer ba sax am siiw la ko jox la ko def moom dañu xanaa sëñ bi xamul lu muy soppilu waaw ndax ndax maanaam bëy wi ni mënoon a amee ay doom waaw ñu ne ko moom am xar mu góor la ci bëgg nee na am benn kuuy mu mag moo xëy ña ko ber na la yeew ko na le nee na séeréer ba daal wax mag ñi ni leen ndax soxla soxla ngeen maanaam bëy xar ma le nee na ñu ne ko waaw mais de bëgg nañ ko nee na mu daal ni jël leen ñu indil ko sëriñ Serigne baax mu daal di xar xar mooma denc ko. ba 1927 di bisub talaata di fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk muy weeru safar mu génne xar moomee daal daal ci yëkkatiyaat lim ci xaalis joxe ko daal di nañ ci wut ceeb ak dëwlin ak la ko mën a togg ak warga ak suukar ak kafe daal ni kët damaa bëgg ngeen santale ma yàlla tey ci bis bii ndax lépp loo xam ne am naa ko maa ko amee ci bis bii daal ni bis bi nag bu ak seetee képp koo xamante bi sa mbégte. sama mbégte la nanga ma ci sant la yàlla kon màggalagu ren gii lu bari ne la bisub talaata la ko Sëñ Tuubaa njëkk a def màggal gi ren ji màggal tombeeg bisub talaata loolu 1921 la ca njaarim mag ñi daa di koy commencé def ca at moom ko Sëñ Tuubaa joxee ndigal ñu rey xarma daal di koy fas yi daal di daal di defu màggal mu daal di wax ni na ndigal li àgg Touba xam nga Sëñ Tuubaa bi mu demee ci bi mu jógee Touba 1895 dem Mbàkke Bari jógee Mbàkke Bari tubaab bi woolu ko ndar mu wuyu ji ba ni mu génnee àdduna tegaatul tànkam Tuubaa déedéet xanaa bi mu làqoo jaam ñi rek loolu bu ngeen ñu ci laajee daan ciy ñëw incha allah waaye booba Tuubaa suñu am satu jaxate moo fa nekk yor daarte di fa jàngale ku mel suñu Abdu Laat ma nga fa woon suñu Abdu Xaadir Serigne Saliou Serigne Chouaïbou suñu Abdou Samad ñooñu ñëpp ña nga fa woon doon fa jàng booba ak koo moom la suñu Alsaan jaxate moo yoroon daar ji ci ndigal suñu am satu doon fa jàngale suñu am satu nijaayu sëriñ Saliou la soxna soxna Faat Jaxate mi jur euh, sëriñ Saliou ak Serigne Amsatu ñoo bokk benn baay sëñ Modou Maaf sa Jaxate moo leen jur bi nga xamante bii nag sëñ sëñ Touba nee na ndigal la na àgg Touba ñu yónnee ndaw nee na ndaw la bi muy agsi xaw naa bëccëg mu ni sëriñ bi kat daa joxe ndigal ni nañ ko sant la yàlla ci bis bii muy 18 safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar fekk booba Serigne Saliou Mbacke sunu yaakaar ja wax nañ ni am na soxna soo xay da koo am mburtu mburtu mooy mbote mu ndaw waaye joxoon na ko bu yàgg mu dénkaane woon ko neen bi ndigal li ñëw xar ma ma nekk na xar mu mag nee na sëriñ Saliou Mbacke bi mu déggee ndigal loola ndaw li ñu wax ko suñu am satu ngir sant yàlla gi suñ Tuubaa woote nañ ko sant yàlla sëriñ Saliou dafa daw dem ca soxna sam dénkoon xar ma laaj ko ko mu jox ko ko mu indi xar ma jox ko nijaay ji suñu am satu ni ko defaral ma ko sëriñ Tuubaa ci bis bi muy sant yàlla ñu santale ko ci yàlla booba sëriñ Saliou fukki at ak ñaar la mbooleem doomi sëñ tubaa sëriñ saaliwu ci njëkk a rey ab gàtt ci màggal tubaa ci at man ko wootee 1921 ma ko sëñ sëñ tubaa diglee sëñ saaliwu ci njëkk a rey am xar kon màggal gi sëriñ tubaa ci boppam moo ko wooteel boppam mu dëggal moo ko njëkk defal boppam bopp ñu di ko def kenn ku nekk di ko defee fa nga nekk murit bu ne di ko màggale fa nga nekk sëñ Modou Moustapha ñëw nekk ca loola sëriñ lu ñëw nekk ca ba jamono nag Cheikh Mamadou Fadal toog fi toogaayub sëriñ Touba. daal di woote nag màggal gi nii ni ko ñëpp nag di ko def see Touba loola waral ñuy dem Touba di ko fi màggale waaye màggal gi moom suñu tubaab la mu joxe woon ndigal moom fu waaye la képp koo xay sa mbégte sama mbégte la bu màggal yeex seetee nag ma sant yàlla loolu suñ Touba digle woon fal nag moo ko wootee Touba ba mu ko wootee Touba nag di ko màggal nag boobu ba léegi nag ba mu fi jógee sëñ Abdou Lahad continuer di ko màggal sëñ Abdou Khadir yàggu fi at la fi def wala at ma maa ngi tuuti continuer di ko màggal Serigne Saliou continuer noonu ba mu fi jógee sëñ Alaaji Baara ba mu fi jógee euh, Cheikh Sidil Muxtaar ba mu fi jógee mu Mountakha Mbacké mi di ko woote yàlla na fi yàgg te wér kon màggal gi noonu nii la dooree ca njaareem mm-hmm. njaareem lañ ko njëkk a defee mm-hmm. ci ndigalu Serigne Touba mm-hmm. ndigal la àgg Touba ñoom it ñu def ko fa ci ndigalu Serigne Touba fii la màggal dooree 1921.